clinique suma guddi nuyante dem na dem xam naa ci kenn dañuy toonan parce que nit ku yor xol bu baax la Abbas Fall assemblée nationale bi ñuy daje mhm. Cheikh coro dañuy tamit comme ça amuñu amuñu duggante mais amuñu problème mhm. saa yu jëlee kàddu sax micro à l'assemblée nationale daf may tuddaale mhm. yëpp sànni xeer la mais du du wax lu du du wax juboon man it noonu damay jël ay kàddu tuddaale ko mais du wax lu bon c'est-à-dire que ñooñu laa miin xam tuuti miin miin nag dem ma seen kër ñëwuñu sama kër mais ñooñu laa xam tuuti loo xam ne bu ma rombante ak ñoom ci. mais protocole Cap Manuel yaa ngi koy dégg. dégg nga ñii di wax boo ci xamul dara am na loo ciy dégg. ni koy déggee noonu koy déggee xamu ci te tamit paam nag ti ma ra ti ma demande si ay secret d'état nag xam boo ci xamee dara wax ma. man kay lii ne ci mbedd mi rek laa xam. ah man nag man moom man moom man tamit nag li ma dégg Macky Sall mi nga xam ne yar na ci wàllu politique yare wuñ ma nag lu ma xam rek di ko bàcc fii ci télévision nationale adduna yëpp di ko xam mais protocole Cap Manuel moom loo ci peut-être bu ma ci déggee dara lu xóot yaa ko wax man kay ci ñëpp di xam laa ci xam. ah man tamit. man li ci ñëpp wax laa man tamit noonu la Macky Sall moom yàllaa ma boole ak moom boole ma ak soxnaam mu fay Sall ma wax la leen yàlla def ma dimbali sama diggante ak président Macky Sall jaarul ci loxo kenn pour suñu duggante ak minante ku dul ci soxna Marème fay moo tax dama ci gërëm yàlla ak samay waajur parce que bu doon jaar na ci loxo kenn tey mën na naa gis nga Farba Ngom mii maa ko booleeg Macky Sall loolu Marème Faye kese moo ma booleeg jëkkëram loolu moo tax dama ci sant yàlla ba ni ñu nekkee chef de l'état 12 ans ba yàlla jëlee ko fi saa yu changé jot naa soxnam ma dem kër ga c'est-à-dire que Marème daf ma bolé won ci famille mm-hmm. mais am nga yéene moom mu dellu ci réew mi pour jëlaat ko président Macky Sall. Macky Sall 2029 Macky Sall lu ma ko yéenewul amul ci lu baax. am nga lan laa ko yéenewul boobu bokk na ci sa yéene. am nga am lan la ko yéenewul. bokk na ci sa yéene. aw ma lan ko yéenewul. lu bon. ma ni boobu lu raw lolou sax yéene naa. loolu bokk na ci sa yéene. lenen lu raw lolou yéene naa. te da nga ñëwaat fi mu jëlaat nekkaat 2029 président yéene naa ko yéene ko lu raw lolou yéene naa ko ñu jox ko sax loo xam ne day day fàtte sax jiite chef de nekk président de la Sénégal dans dans l' international yéene naa ko lu raw loolu lu ma yéenewul Macky Sall amul ci lu baax parce que loolu laa gis moom nit ku baax la nit ku oyof la nit ku mën nitam la nit ku mën a relation la. ok waaw mais euh, sa digganteeg Amadou Ba lan moo ci nekk ak lan moo ci des. y' a aucun problème Amadou Ba daf ma fekk biir APR Amadou Ba bi Macky Sall gagné nek président de la république la la wax man mako ñëk jël yobbu ko Mermoz keur Macky Sall ñu tok waxtaan ba 2h du matin parce que suma xarit la daf ma lebal tarank te duma ko faté Macky Sall xam na man duma musse jël kàddu wax ci Amadou Ba ñaaw yéen ngi déggante Amadou Ba hmm. on a même ba ci élection yi même la veille bi mi ñëw campagne ou na ma na ma dina jaar vers 2 h du matin ce côté ce côté dëkk mané ko biñ la doon présidentielle donc ko fi am bii ba dee am Matam mu ma bandi ñu tooñante parce que c'est mon grand frère. on a de très bons rapports mais politiquement Macky Sall bim koy nommé il devait même premier gouvernement def ci waroon bok mu moy ñu bayiko directeur général des impôts domaines bi ko nommé ministre des finances risque bo yégué au au sixième étage à droite fofu dafa qu'on presque sama deuxième bureau audience yi bëri fa la fa laa ko daan jëlee man rek ma nekkoon permanent chez Amadou tous les jours que j'ai fait ma ngi finance tous les jours yalla mu boole ak moom. te aussi démarré wul tàmbaliwul bi mu nekkee finance même dans l'opposition, wad Wade nako na interpellé sax géwélu màkk bi. Mhm. dama dégg day ñëw foofu ngeen wax li ngeen wax lii. Mhm. te loolu dama ko di yag di wax parce que man kuma defal terang duma ko sul ay jëf la donc je n'ai pas de problème personnel avec Amadou Ba politique nag ànduñ politique mangue militant Macky Sall la ñun ñoo fa nekkoon di ànd peut-être mon moo xam ces raisons yi tax mu dem créewul benn problème dem man maa ngi des APR desuma sax APR man maa des ci Macky Mais mais amul problème ak Amadou à wala Cheikh Oumar Anne aucun souci damay xarit lañu N'a pas assumer mais politiquement ànduñu d'accord yaa ngi xaar déclaration politique générale pour Ousmane Sonko ci assemblée nationale. ah bien sûr loolu kay euh, dama dégg ne sànq ñu ne nee na c'est imminent yàggatul bu ñëwee mu fekk ñu assemblée nationale ñun on est des députés il a été député Ousmane nekkoon na député. Amna lo bëgg mu léral la ci. ci lan ci bu ñëwee assemblée nationale. non lolu on n'est pas en nekkuñ ci déclaration politique générale nak non mais damay xal ba déclaration politique générale bi rek. li may leeralu ma lérlu ko foofu. Farba yaa ngi mel kuy jënd glace de. lan mooy glace. man jënd glace mooy lan. <laughs> non dama lay laaj ndax am na looy xaar. ci la Ousmane Sonko par exemple su ñëwee ci déclaration politique générale waaw actuellement fu ak sénégalaises yi fal nañu Bassirou Diomaye Diakhar Faye président la teg nañ ci élection législative Sénégal yi jël nañu volonté Ousmane Sonko mi diriger liste Pastef jox nañ leen majorité assemblée nationale. Mhm. dama leen di ñaanal yàlla ñu réussir. parce que loolu du ñoom la du ñoom laa koy ñaanal réew mii laa koy ñaanal yaakaar naa seen réussite mooy réussite Sénégal te loolu bu amee suñu avenir njaboot la man awma ci benn problème leneen li ci des nag ñu ngi xaar léegi ñoom yan ak la ñuy posé liggéey changé doxalin réew mi fexe ba réew mi naat mu am ay projet vraiment yaakaar nga ni mën nañ ko réussir développé dëkk bi. en tout cas naa leen ko man yéenuma leen ñu échoué. du may waxtu yàlla tax ma leen ñu essuyer te bis bu ñu defee lu baax ba ñëpp xam ne lu baax dinaa leen tàccu duma leen feccal nag <laughs> daa leen tàccul parce que bu ñu defee lu baax Sénégal xam nga def Sénégal su doon booy dem di nga ko yóbbaale Macky Sall lan la fi réalisé réalisé wul est-ce que bi muy dem yóbbaale na ñoom tamit bu ñu réalisé dara ci biir Sénégal suñu avenir réew la avenir njaboot la mhm. kon ku ne na leen ñaanal ñu réussir man loolu laa leen di ñaanal aussi ando ak ñom rek dañ leen wara a lu bon man dekkuma ci situation bobu aw xol bobu sax bu politique joté dama koy def assumer sama position ak responsabilité yi nga xam dama ko wara a jël mais bu yalla dogalé sénégalais yi jël sen programme ni li majorité bi kii diiw lañ koy jox man dama koy accompagner amu ci problème mais du tere dama décider opposer je suis avec Macky Sall man militant wu Macky Sall là du ma militant wu APR. boobu léegi yaa ngi koy léral de lolu ah oui. boobu léegi loolu yaa ngi koy leeral. loolu c'est que def ma ji teraanga yàlla boole ma ak moom ma xam ne ñu bari pexe yu ñu doon def pour que man ma sori Macky Sall mu nekk diiñ rek nekk muñ rek. Ah, mais lu tax ñu bëggoon nga sori ko. mais xam nga y a des gens mbirum mbirum intérêt moo ci nekk da ngay comprendre da nga leen di gêner boo nekkee boo nekkee sa à dire que man yàllaa ma dimbali. lu ma mës wax nee naa ci d'accord mais saa yu ñu wéetee ma wax ko sama xalaat. j'ai toujours pris des positions pour dire qu'on est lii d'accord te actuellement ni mu ngi may seetaan j'ai pris des positions Pour dara amee ci biir mbooloo lu wax ma gonga mais suñu wéetee ma wax ak wala ma dem ci soxnaam ne li waxal ak président Li na ci bàyyi xel même bu dul wàllu état sax mu doon wàllu politique parce que politique laay koy gën di liggéeyal état aw ma benn responsabilité biñ ma jox politique moom xalaat naa ci ñu def ko du benn du ñaar mhm. te tamit am fu ma teg ma rafetlu ko tey wax dëgg yàlla Macky Sall taxul ma am xaalis taxul ma xam xaalis taxul ma am xaalis mais tax na sama tur egsi foo xam ne mënuma ko woon imaginer ci sama àdduna moo waral nag reconnaissance boobu à vie yoral naa ko te militant am laa nag ci wàllu politique je suis pas membre de l'APR bu jëlee li may wax ni fii laa ko waxee de bu jëlee APR jox ko keneen bu mu xalaat ne ne man damay topp ko kooku militant APR moo koy def man militan Macky Sall bu defee loolu politique man ma jël samay responsabilité fu ma neex ma dem du ma militant wu APR de. militant wu Macky Sall kon su àndoon ak Pastef nga ànd ak Pastef. Macky Sall. waaw ah. dama leen di lalal basan <laughs> Macky Sall laa àndal. Farba maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di la bàyyi bu fekkente ni am na looy tàggoo nga nga yaatal.